ouais, on reste humble, on est soudés, on, on, se connaît depuis très longtemps. Donc euh, nous, on se concentre sur notre objectif et on sait l'objectif, il faut y aller jusqu'au bout. Comment se motiver pour un match où on est déjà premier, on est déjà qualifié Est-ce que vous serez euh, sous pression bah, nous, depuis le début même des qualifications de la Coupe d'Afrique, on n'a pas de pression. Donc on connaît le coach très bien, on, se tra on travaille très bien aussi avec le coach. Donc on sait l'engagement qu'il a pour son peuple et nous aussi on a l'engagement pour notre peuple. Donc on est toujours déterminé pour euh, représenter notre drapeau.

Bah, si le coach a confiance en nous de nous mettre sur les 11 de titulaire, on notre maximum et défend notre couleur. bah, Il a toujours la motivation de jouer pour son peuple. Il faut éliminer l'Algérie, c'est important pour un concurrent C'est un match qu'on veut gagner, donc on respecte notre objectif et aller jusqu'au bout. y a une décompression possible après ce Non, même pas. On, est conscient de ce que nous travaillons, on est conscient de ce que nous faisons aussi. Donc on se prépare à chaque match, comme nous le dit le coach. Donc nous, on est positif et on continue à travailler. Euh, am parce que ba ñuy jógee Sénégal njiitu réew mi wax nañu benn motivation donc loolu la ñuy jàpp ba léegi dañuy dem pour représenter Sénégal donc match yëpp a yem dañuy dem jël match match par match yàlla lu ñu may ñu jël. gis nañu équipe bi amélioré wu na bénéfié bonifié wu na ci match bi ñu jënn euh, est-ce que mun nañu xaar ni Sénégal au cours de la compétition dafay monter en puissance. waaw ñun ñun lu ñu coach bi wax depuis préparation dañu jël match par match chaque équipe bu ñëw dañ koy jël préparé ko bu baax a baax. ñu yàlla may ñu ndam ñu gën a góorgóorlu rek loolu ñu jël match par match lu ñu yàlla jox ñu jël. quart de finale qualifié ngeen ko ba pare maa ngi wax euh, Burkina wala Gabon est-ce que am ngeen bu ngeen ciy taamu wala ku ñëw baax na. non ñu kenn ñun ku ñëw rek baax na ñun na ñu préparer compétition bi pour dem ba fu ñu yàlla natu daal en tout cas nañ joxe le maximum ku ñëw ñu jël ko liggéey ak moom ak coach bi incha allah.